asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi wala téléspectateurs yi dañ leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi Pikine yaakaar naa ne Pikine moom bu ngeen ñu fi gisee ci làmb defe naa ne kenn du laajte lu tax ndax goxu làmb la parce que li ko waral mooy doom yi nga xam ne ñoo dëkk Pikine ca maam ya ba ci doom yi ba tey ci sët yi macha allah muy dëkk boo xam ne dëkku mais nag du bëre kese parce que am na ñoo xam ne dañuy ànd ak mbër yi maanaam di leen gunge di ay supporter ñi di leen sàqul ay ñaan fu nekk am ci koo xam ne nag defe naa ne ku ne xam na ne Djiby Ama dégg nañ turam yaa ngi dégg li ko waral mooy ku ne xam xam na digganteem ak Ama Baldé yàlla miy tege feebar nag teg ko feebar ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla wéral mu bépp doomu aadama bi nga xam ne wéra dina lool nag bi mu amee defe naa itam fi mu bokkoon muy làmb ba tey ñu ngi koy fàttaliku di ko jàppale yaakaar naa ne gis nañ ñu mel ni ki ñoom Aziz Ndiaye gis nañ ñu mel ni ki sax même ñu dul waa làmb Ali Nguy Ndiaye gis nañ ñu mel ni ki ñoom Wally Seck tey nag ñu am koo xam defe naa moo yor esprit mi kañ yi muy le ministre des sports Matar Ba ku mel ni kanj mi nga xam ne bokk na ci kuréelu amateur yi defe naa nekk seen porte parole sàkk woon ci moom pour mu na waaye la bokk te Matar Ba mu yilif ñëpp rawatina ñu nangu ci sport moom defe naa loolu tamit tàbbiwul ci noppi ku tëx ba Kandji waxeek moom mu la nga xam ne moom la am comme alalam jox ko Kandji mu ànd ak tey ñu mel ni ñoom Pape Alioune Mbaye ñu fas kii nga xam ne moom mooy Djiby Ama loolu nag ne lu rafet la te lool kese lañ leen di doyee maanaam ñu jege askan wi nga xam ne a jiite loolu dafay nekk lu am solo waaye Kandji faw tàggee boo gis am na jàppal diw li ko waral mooy euh, feebaru ji bi ama defe naa ne tey àddina yëg nañ ko te ñu bari ñu ngi ci dugal seen loxo loolu tamit dinaa ci gërëm koo xam ne waxuma ko ngir dara mais lu am la ku mel ni Lamine Seck Lit TV parce que gis naa am solo kon loolu tam dafay baax di wax te sa Abdoulaat na ah géwél amul mais ku la defal lu baax nga wax ko yaa ngi ko loolu moo tax ñu di ko wax ñu gis mu taxaw ci taxawaay bu am solo Lamine mention spéciale da itam di wax ne lu baax des fois ñu wane ko ñu ne wane wane mais lu baax dañ koy fésal mbaax balaa am solo ñu fësal ko ndax daa bari ñu mel ni Babacar ñoo xam ne jëf lu baax da leen a jafe des fois bu ñu dee dëkkal mbaax ci seen i bët dina tax ñu soppi doxalin kon nag defe naa ne loolu mooy li nga xam moom la ñu ubbee jox Papa Aline mi nga xam di suñu confrère ci métier mi kaddu gi di ko nuyu wat di nuyu wat buur géwél mële ak waa Lamine Faye Lamine Golo waaye Aline tamit di acteur euh, culture bu mag a mag ci réew moom tamit ñu koy nuyu ci théâtre yi nga xam ne moom lay joué bu baax a baax di nuyu waa Pikine yëpp Papa Aline jërëjëf Babacar ñu ngi lay fay jërëjëf di leen nuyu bu baax a baax di nuyu sunu naataangoo buur géwél ak équipe waaye ki Equivox naka noonu ak waa Géejawaay info sunu mbokku taskatu xibaar yi fi na yëpp ñoo ngi leen di nuyu di am te bokk daja fi ak yéen kon loolu mooy danoo ñëw rek fekk fi sunu bopp di leen sargal di leen ndokkeel ci liggéey boobu solo bi nga xam ni yéen a ngi koy def ngir lu suqali làmb ngir lu suqali réew mi waaye ngir lu taxawu ndaw ñi daje bi nag daje sant yàlla la ñuy nuyu mboolem ñu nu àndal ñëw fi fa tubaar fa kàll kànji mi nga xam ni moo jóg jógaale ñu ñu ànd ak moom yaa ngi koy wax Aline Mbaye mi ngi fi ñoom Grand Lamine ak mbokk yi ñu fi fekk yëpp di sant yàlla bu baax a baax di nuyu sunu yaay ji fi fekk si di ko ñaanal jàmm ak wér di ko wax ni coono yi mu daj ci sunu frère bii di Djiby Ama yàlla yàlla fayal ko boppam tubaar fa yàlla olof yi dañuy wax yaay ju sonn doom moo la sonal waaye yaay ju tedd doom moo la teral mm-hmm. kon sunu frère bi yàlla yàlla fëgg boppam mm-hmm. ba tëraay bi mu jóg teral la yaay ji bi amaa ñi ngi ñëw seet si la di la wax ni ñun ñëpp lii lu nu amoon yéene def ko la mm-hmm. waaye lu nekk ak fa mu war a amee lu nekk ak fi ko yàlla di jaarale ñuy gërëm le ministre des ma tar Ba ci li mu nu defal defalu ko boppam ndax boo dee sunu frère li war ñu ci yow mu toog fa tubaar fa kàlla yable fi kon loolu ñun ñëpp la ko defal waaye loolu it bu amee am na fu ko yàlla jaarale kànji Kandji jërëjëfati rek lan lay wax ndax lépp yow la ndax réew mi toll na foo xam ni bari na ñoo xam ni bu nu toogee kilifa du ñu xalaat ku dul seen bopp kon boo jógee toog ak mataar ba sol sa dàll ngir sa rakk boo jógee toog ak mataar ba sol sa dàll ngir loo xam ni sunu sag la ñun ñëpp dañ la ciy sant di la ci gërëm yal na yàlla yokk mën gi yal na yàlla yokk sa sutura di wax ni daal ñun ñëpp kontaan nañu ji bi jàppal ni tey ñi la yàlla booleel nga doon ànd ak ñoom ci sport ci làmb nga bokk ak ñoom jamono ngeen di ay maas ñoo jóg tey ñëw fekk la fi nga ne seet la di ñaan yàlla fëgg sa bopp ñoo ngi ñaan yàlla saafara la ba ni nga ko doon defee di jóg di ànd ak ñun ñuy bokk di nekk sunu borom defal ma ko wax rek defe naa kii moom xàmme ngeen ko acteur culturel bu mag a mag macha allah di mm. su ma soppe ndax ni ma ni ma soppe noonu laa ko soppe rek Aline tey defe naa ne boo gisee lii mm. loo ci war a mën a sàddi ak comme ay kàddu waaw asalaamaaleykum di nuyu internet yi fi toog yëpp di nuyu kànj mi nga xamante ni macha allah moo tax ñu ñëw fi ndax wane na ni dafay yaatal mm-hmm. parce que ku ma fi gis da ngay xam ni ci yaatalu kànj la macha allah làmb nag doon loo xamante ni tey bu ñëpp rocc woon li am ñun làmb lay defe kon am ñu lu dul làmb kon ki nga xamante ni ci njabootu làmb la bokk tëdd feebar man yàlla xam na ni bi am na émission boo xam bi ma koy wax di di wax ñi ci jàpp xalaatuma woon ni sax dina fi ñëw ak kànji ni nga xam booy def da ngay def te yàlla tax nin ko waxee nag ministre macha allah def taraanga ju mel ni ñun ñëpp la ko defal ndax kenn ku ci nekk même boo dëkkul pikin te di ko gis ci internet bi am nga yéenee def parce que loolu rek mooy mooy Sénégal parce que nit ki tëdd feebar dimbali ko ci jaamu yàlla bokk mhm. te loolu lii dafa war a yee nit ñi mhm. ba macha allah kenn ku ci nekk li nga am parce que yàlla bu la joxee bool mhm. nga lekk bu la joxee bool yi dalaa séddaleloo te am na ñu am ci réew mi ñoo xamante ni war nañoo mën a profité ci occasion yi di ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi parce que julli farata la boo ko deful yàlla dalay duma yàgg moom la mais jaamu yàlla mooy dëgg lii li nga sañ a def nga bañ mooy lii nga xamante ni tey boo ko toogoon sa kër seetaan ko te defoo ko kenn doo leen lu tax nga ko kon boo jugee def ko loolu mooy jaamu yàlla mm. comme ni nga ko waxee siiwal ko it dafa am solo mm. ndax dina am benn Alioune Mbaye bu sàggan boo xam ne dung bonom mm. mais ñàkk a xam la wala jàpp ni waru koo def bu ko gisee nii dina tax mu jug def ko mm-hmm. kon macha allah ñuy sant ministre di sant Kandji mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla buñ fi teewee mm-hmm. ci yéeneem la ak yaatalam seen naa Alioune wax na ko léegi intérêt personnel gor du ko def nit lu yaatu kenn du ko xatal mm-hmm. kon boo toogee ku doy ni ministre nga xam ku fa toog da ngay xool nu sa poos ñoŋee mm-hmm. nga sañ a fàttaliku jaamu yàlla bu tëdd mm-hmm. te tey bu ko fa waxuloo nit kenn du ko ni kànju lu tax waxoo ko fa ndax ba muy toog ak ministre kenn fekkewu ko loolu ngorom ak comprendre moo tax parce que nit ñëpp bu nu maasee gëm yàlla tey def te yàlla tax rek coodu jëpp ñuy ñaan nag lii fi ñëpp indi yàlla na nu ci yàlla defal lu ko dàq mooy yëkkati jibi ama yàlla na ko yàlla wéral ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di ñaan képp ku koy seetaan it te mën ñaan bul basé wu ci ni yoruma nangam mais képp ku seetaan lii même bu dee benn fatiha bu sell ak salaatu ala nabi boo ko defee yàlla dina ko nangu parce que yàlla ne na salaatu ala nabi ma ko delloo te rus naa nga boole kook ñaan ma rocci ñaan nga bàyyi salaatu bi kon jimeama yàlla na ko yàlla yëkkati képp ku ci def sa xaalis yàlla na la yàlla suturaal ndax lii ñëpp a am yéene kon ku ko def rek ñi am yéene nga ko defal di wu sunu yaay ji ndax ku ne xam ne fi doom féete way juróom waaye nag natt moom boo ko mu muñee rek yàlla defal la xéwal fi mu ne fii mu tëdd mën na fee jóge cëru yàlla bu mag mhm. parce que yàlla bari na ko muy nattu ci feebar nga nangu ko te yàlla tax mhm. yàlla motti la ko di sant di gërëm ñëpp Babacar kenn du yow ci ñun ndokkeel mhm. waaye di ndokkeel mboole mi fii daj yëpp ci jaamu yàlla gi nga xamante ne que moom la ñu ànd tey di ko def si euh, di nuyu suñu rakk ji jibi ama euh, damay wax ni lii làmb rek moo ko man te Djiba Ama du woon lutteur du woon manager mhm. du entraîneur mhm. du promoteur mhm. waaye bëggoon na lamb ci xolam ba tax ku mu naan dagg ay yitteem di ànd ak lenn ci mbër yi kon tey bu ko lu mel ni ganesee waa làmb def ni nuy def depuis le début kon Babacar man damay gëm ne que dëgg-dëgg lii lamb rek moo ko man waaye it di ndokkeel taal bi Cheikh Ibrahim Mbacke borom dël bi Kandji nit ku franc mm-hmm. nit ku sincère mm-hmm. nit ku loyal sur ses pensées te léegi loolu réew mi manqué ma mm-hmm. ku ci nekk ñun jàpp nga ni que boo toogee kilifa la la fay ñoŋal ak la la fay ñagal rek ci nga war a nekk waaye moom gëm na ni li ko sama borom defal ak fu muy jug ak fa muy jugee yaakaaree wu ci beneen poche bu dul ci poche Cheikhul Khadim kon loolu lu am solo la waaye gàcce nga laama monsieur le ministre Matar Ba damay faral di wax naan c'est le ministre le plus aimé de la république li tax mooy moom rek Babacar ngay gis te teg nga ci sa bët te sa wax ji dinaa ko layoo bu ëllëgee wal xiyam mooy mu wàcc buntu buntu arène wala buntu estade jaar ci kiy jaay kafe tuubaa nuyu ko jaar ci kiy jaay caaf tooñ ko dem suñu mbokk way laa koy yalwaan tooñ leen ñëw ci waykat tooñ leen yéeg ci kaw tribune bi toog seetaan làmb am ak ñëpp jàmm te amul kenn xaar ma yàlla keroog euh, bi Faalaay amee problème yooyu ñëw na fa keroog ca dëj euh, dëj ba Jules Balde Jules Balde Junior ba mu jógee ci dëj ba keroog dañu waxtaan keroog mu jooy te man xam naa keroog li ko li ko li ko li ko jam ba mu jooy keroog donc bu defee jëf ju nii ànd ak suñu grand yu yu baax yu sell yiw yi tey ku ne xam na ni réew mi actuellement temps bariwul mhm. ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon mhm. ñëw ci tey dañ leen gàcce ngalaama waaye gàcce ngalaama la presse en ligne li tax may ndokkeel la presse en mhm. euh, ci yu mel nii la war a gëm xam ni que ñoom am nañu utilité ci réew mi tey ci cas yu mel nii jëral exemple de Farel bu Dakar Buzz jëral li Lamine Seck def ak keneen ak keneen foofu lan ñuy xaar xaaruñu sur le buzz xaaruñu ci luy yàq xaaruñu ci ci luy féewale xaaruñu pour weer vie privée jàmbur liñ fi ñuy xaar mooy que dañuy wane ne kat ñun war nañu mën a contribuer ci liy defal réew mi tey jibi mi tey mbiram ñoom Pape Sarr magi Pikini tey presse en ligne bi ñoo déclenché guerre bi tey ba mu yëg si fi tey ba gëm nañ ni que ak rafet njort que wallahi yàlla dina ko yëkkati ba mu dellu ci ay itam waaye dinaa ko nag li ngay baax baax eh, gërëmal sa ndey bu baax a baax a baax ndax yéen yéen a kàññi liggéeyub ndey moo koy maye te am na keneen ku mel ni moom ku ne ci ruq am leen lu gën a metti li ko dal te kenn yëgu ko waaye tey ndeyam a ko wallu bi ñu toogee ci biit rek laa koy wax bakaay ne ko xale bii de xaw ma ndeyam démb xaw ma ko tey waaye li mu mën a kitaabu ci mbaaxu yàlla mooy tey barkeb ndeyam moo ko moo moo ko dimbali ak barke donc dañu ñaan yàlla ji yàlla yàlla fëgg sa bopp euh, alal nag dana faj waaye joxewul wér yàlla mooy joxe wér ñu di ko dagaan ci barke mat di bu chifa yi yàlla fëgg sa bopp yëkkati ci la waaye monsieur encore une fois monde làmb ñu ngi lay wax jërëjëf ba jërëjëf jërëjëf seetaanoo làmb benn yoon te lii nga nu defal nag jàppale ñun waa làmb moom euh, li amaan naan ku ñu dóor di nga ñu aal euh, di nga ñu aal gi waaye Kandji mention spéciale li nga def ni tey yàlla bég na yonent bi bëgg na Cheikhul Khadim bég na sa sang ba la Abdoulahi Mbacke borom dër bi bég na kon ji li ci des daal nañ ko bàyyi ci loxo yàlla te di ko dagaar yàlla am na ko mën na ko Babacar yow jërëjëf bu nag ak yaay gi <laughs> loolu la yàlla dogal ak yaay sama dëkk ba maa ngi leen di béggee gi tur bi waaw man la Ibrahima Sarr ma bokk ak jibi baay moo topp ci man waaw di nuyu yéen ñi ñëpp ñu fi teewu di masowaat Kandji Kandji c'est pas la première fois mu woote fi depuis ba ko gisee ci Demba Jama ba léegi daf ko topp di wax ak moom ne ko ministre yëgu ko woon mais dinañ def le tout pour ñëw fi ba tey suba moom ma woo téléphone ma teetal ko mu ñëw di masawaat suñu yaay ji jigéen bu mun góor ñu yar suñ papa làqoo 2006 ba léegi moom lañ xam mooy loolu di gërëmaat monde entier waaw. tey ñëpp fi ñi fi ñëw bëri na gis nañ ci waa làmb xam nga maanaam mënuñoo lim tey loolu yow en tant que frère am loo yëg. waaw euh, di delluwaat di santaat yàlla rek di santaat yàlla di santaat ci yeneen bi di di suñu yaay ji ñaan bu baax xam ne ñun. waaw amuñu ku gën suñu yaay wallahi man du ma bëgg sax sama yaay di wax su génnee wax rek day jooy te bugguma di gis sama yaay di jooy waaw di delluwaat di masowaat ji bi di ko wax léegi mu jeex lu gënoon metti jàll na di gërëm may delluwaat di gërëm sama capitaine Cheikh Kouyaté wallahi Cheikh Kouyaté équipe nationale amaana moom moom la njëkk gis mhm. ñun ginnaaw yàlla moom lañ njëkk gis barki Serigne Saliou mu jàpp si boobu ba léegi lu mu mujjee joxe million millions 500 yi sax ci la siiw mais avant 7 millions 500 yi amoon na lu ko fi jiitu avant 7 millions 700 yi amoon na lu ko fi jiitu chaque weer mu yónnee ration di jënd pigiiru jibi am nga jibi lu muy pigiiru par jour ñun looloo ñu gënoon dem ba sonal ñu di gërëmaat Lamine. Lamine ndax moom tamit moo ko médiatiser lépp moom la. Mm. di di di gërëmaat ministre ex ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye mhm. Aly Ngouille Ndiaye tamit jàpp na si bu baax Waly Seck ak Ndiago Oro mhm. ak kii El Hadj Dembaka mhm. Aziz Ndiaye waaw ñu ñëw leen dellu di leen gërëm Dora Gueye Rama Maki at monsieur le maire Pape Ndom mooy suñu maire commune waaw di delluwaat di gërëmaat Matar Ba waaw ginnaaw yàlla moom te gis nañ kànji taxawaay bu mu ci am mataar ba ñoo ngi koy dellu di ko ñaanalaat mhm. lii yëpp ñoom ñii ñu def ñii ñii ma fi lim nii mhm. ay dembaka ay mataar ba mhm. ay Aly Ngouille Ndiaye Waly Seck Ndiaga door a Gueye ñeneen ñu si jàpp ñoom damay wax mati mu gën leen a jàpp xamu baxam jàpp na leen wala jàpp leen mais surtout Waly Seck Matar Ba ak Aly Ngouille Ndiaye ex ministre de l'intérieur seetaanuñu benn yoon buñ ko yëgee lañ ñëw contribuer def lu ñuy def di delluwaat di gërëmaat diaspora bi yëpp. waa ëttu làmb ji gis naa leen. waa làmb bi tamit mobile 2 hmm, at waa ëttu làmb waaw hmm. at Pape Sarr Mortala Demba Jama Kanji xam na ko. Hmm. ñoo juddandoo yarandoo màggandoo ñooy ànd. moom tamit seetaanuñ benn yoon di gërëmaat sama mag. Bakary moom moo nekk pari moom tamit ba dara dul dara moo si doon taxaw ba nii bu nekkul woon moom tamit ak Cheikh Kouyaté waalo ñaaw mhm. parce que demoon nañ ba mooy loolu di gërëmaat diaspora bi yëpp man ba fu àdduna yem Australie Sydney mhm. am na ñu ma fay woo billaay wallaay wa taalaay ndax yéen kat tamit yéen presse bi tamit amuñu seen fay yéen a ko médiatiser mhm. génnee ko ba diaspora monde entier di si def seen alal di ma woowee fu ne billaay wala ak kilifa diine ba at waa Touba tamit amuñu seen fay ñoom ñaani mu ngi yegg si baax a baax a baax waaw ñoo ngi leen di delluwaal di leen gërëmaat di leen ñaanalaat ne xam ni lépp yegg si na te ci kàttanu yàlla incha allah ji bi xam naa du génn ci. maa ngi lay ziar maa leen di fay bu baax. di leen nuyu yéen ñëpp. di rafetlu lii bu baax a baax. man moom wax dëgg yàlla sama xol daf fees sax ndax xam nga rek su ma gisee sama yaram day daw. ndax kii jëmm la joo xam ne xam naa ko bu baax sama raq lañ ñoom ñëpp. ndax man ni ma koy waxee rek. géejawaay laa nekk moom laa féetewoo mais fii laa fii laa dëkk ndax lu mu guddi guddi Pikine laay fanaan ndax xalaatuma woon ni sax jibi fii la dëkk te chaque jour fii ma romb ko te musuma koo xam parce que su ma rombee rek man damay aj samay veer romb jubal dem mhm. mais sunu borom lii la dogal mhm. di ko ñaanal fii mu tëdd rek mhm. yàlla na ko fi yàlla yëkkatee jàmm ak salaam di gërëm encore une fois kànja nga xam ne sama xarit la sama lépp la mën naa ni làmb li muy yaatu yaatu li may waxtaan ak Kanje ci waxtaan kenn ndax nit ku rafet kàddu la ku rafet xalaat la ku koy déglu si ay wax am na yu bari yoo xam ne sax doo si juum man si ay côté langage dama ko ciy roy lu bëree bari ndax dañuy waxtaan lu bari di gërëmaat mataar Ba bu baax a baax di ko xamal ne lii mu def defalu ko ngir boppam defal ko pour kenn làmb la ko defal ñoom moom ñu ngi koy santaat bu baax a baax suñu borom bàyyi ko fi ba mu gën a mën di def lu baax ndax lu baax rek moo am solo di ñaan jibi yàlla na jóg fii ak jàmm ak salaam loolu rek laa amoon lu ma doon wax ok jërëjëf ni kon ni ngeen ko xamee rek ah di ngeen kàddu yi fii jàll defe naa kànju mi nag ah lu olof lu dafa wax lu ay di njàmbat moom moo dem toog ak monsieur le ministre Ba mhm. wax ak moom ba Matar Ba te yónni ko ngir jàpp ci lu mel nii kànji defe naa ne jërëjëf rek lañu lay wax di ñaan yàlla guddal fan wéral cër yi defal ko bépp doomu dama te jibi ama yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati looy wax waaw jërëjëf baaba ansu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin la ñuy wax mm-hmm. li tax ñuy wax alhamdulilahi rabil alamin d' abord dañuy nuyu internautes yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan mm-hmm. à travers sites yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Géejawaay info mm-hmm. Equivox ak Dakar Actu di la sant yow bu baax di sant buur géwél parce que bi ñu jug leen yéen ñëpp da ngeen jug di sant seen caméraman yi ak càndum mii di sant nag euh, Pape Alioune mi nga xam ne moom laa fi àndal tey ak Alioune Mbaye ak Lamine Babacar mhm. nit di nga war a ànd ak moom mais bu ngeen mënut ànd rek du ngeen ànd. dëgg la yàlla bis bu yàlla sàkk ñi mën a ànd rek lay boole. Mm, te gis nga dañu toll ci jamono boo xamante ne jikkoy tëli bu jaar ci biir marché lañ nekk boo gëmee mbëkk nit ñi boo xoolee gis lu neexul yàlla foofu la réew mi toll léegi. mooy benn ñaareel bi ci des lamin mhm. wallaay mënumaa sax wax parce que sama xol bi dafa tooy. li tax sama xol tooy mooy. Mm. du ji bi mm. mais maire bi. waaye gis nga nattub jullit mhm. day yokk ay maxaama mbaa muy seppi ñaawteef bisub xiyaama mhm. sëñ Moussa nee na yàlla xarit ba lay musibaat mhm. ngir dara jaal ko mbaate mooy ko ñuy baal la yàlla jox xarit ba ciy maxaama bu ko munta jëf ci natt la koy xayma dafa am loolu bu ko yàlla wàccoon ba wax leen li tax mu def lii nga ne ko yeex nga ko def feebar nag ci jamono ji ñu toll moo yëre yu tooyee yam weer rek mbaa du faj foofu la réew mi toll faaw ngay weer mbir yi sinon mbir mi du faj waaye buur géwél dafa wax lu am solo ci presse bi mbaam day toog ci sën di wéqu di wéqu ba génne or te du ko jariñoo ndax xamul li wéqu lu mu doon boo yoree lii nga xamante ne bii mën naa xëy tasam réew da xam li nga yor lu mu doon ngay seet li amal njariñ réew mi nga di ko wax di ko wane waaye jaamu yàlla gii ñu def tey ndax waa ji bi ñëwee sëñ Fallou ne ko xaalis laa yor damaa bëgg a yàlla dana ko demal ci jaamu yàlla yi yàlla na Mm-hmm. bay nas sunum xel ba lépp loonu ci xalaat di ko wax muy doon lu mën a jariñ nit ñi mm-hmm. ndax nit dina wax ja dara fekk mm-hmm. yàq na loo xam ne xamu ko sax xëy na bis man ngay dox sax ba nga ñëw ci kii mu ne na ah yow de yaa tax lii am ba nga waxee nangam ba nga defee nangam di sant nag Matar Ba ndax lii ni mu demee c'est très simple dama gis affaire bi Lamine Lutte TV dugal ko bi mu jàllee ma gisaat Demba Jamaa mi nga xam ne mooy sama xarit dama am événement tëgg Sidi Diop Grand Théâtre mu di ci taxaw ba bis ba jàll te teguma ko bët te mooy jënd connexion am mhm. chaque jour mu publier chaque jour mu dugal te bis ba dafa ñëw jënd bii mhm. dugg te gisuma ko mhm. loola nag kóllëre la ak jëf ju rafet ba ma gisee mu dugal ko ma woo ko téléphone dem ba wax ma ci la nga xamante ne bi moom la ci xalaat ak fi mbir mi toll ma jël sama téléphone woo Matar Ba mu waatal ma ci alxuraan ne ma yëgutoon loolu ma woo dem ba yónnee ma vidéo yi ma transféré ko ministre mu ne ma lëndi ñëwal sama biro boo ñëwee sama bureau ma ma lay jox nga dem yóbbul ko fa du xaalis bi moo am njariñ li am njariñ mooy geste bi ak yëg ba wanee ne rek tey mhm. tey président daf ko yónni loolu la ma wax démb mhm. mais moom moo naroon ñëwal boppam fii mhm. ndax jibi ci njabootam la bokk pour wax na ko léegi du mbër du manager du promoteur waaye nag dafa bokk ci loo xamante ni mbër munu koo ñàkk muy kii ànd ak mbër ndax mbër saa yuñ tuusee mu gestu gisul kii ànd ak moom fii doo mën naa ref refi kon jibi lii ñu def nii tey dangay xam ne ñun defaluñ la ko suñ bopp lañ ko defal ministre bi lii mu def nii tey defalu ko boppam réew mi la ko defal defal nañu ko ñun waa ndax tey jii Kandji waroon naa mën a yëkkati xaalisam def ca nga jàpp ne Kandji yor na ko te amaana sax mën na ko bañ a yor noonu keneen ak keneen noonu kon bu yëkkatee dara nekk geste la dama koy contribuer ci feebar ji bi dañ ko ciy sant di ko ci gërëm di wax ne ñi nga xamante ni bii ñooy jege kilifa yi nañ leen di yëgal liñ leen di war a yëgal ndax léeg-léeg nga xas nit mhm. wax ko loo xamante ne bii lu mel ni xeme la te wallaay lal asim yëguti te ñu dafa am foofu ñun ñi nga xam ne ñun ñooy sénégalais lambda yi ñoo fa jote mhm. nañuy dem di ñëw di indi les informations exactes mhm. yi nga xam ne moom la ñu war a jox ñoom ñii li ñu war a def ñu di ko def mhm. li ma ci santee nag mooy dama fee dégg ñoo xamante ne sama njaboot lañ bokk mooy ku ci mel ni Waly Seck Ndiaga Oro Aly Ngouille ñu bokk Linguère Aziz Ndiaye Waly bi ma Demba Jamaa waxee dama ne ko ciblé naa Waly ciblé naa Matar Ba te ñooñu maa la jox sama kàddu ne dinañ ñëw ndax ku ma ci waxal dinaa la wax loo mën a dégg te man xam naa seeni xol gis nga liggéeyu ndey ci millier lay feeñ mm. liggéeyu ndey du xaalis ndax baaba maag yow dañuy bokk ndey ak bàyyi nga weer milliard du ma yor cent franc te ñoo bokk jenn ndey ju liggéey waaye buñ ne yàqu na foofu la liggéeyu ndey di ñëw buñ ne kenn mënatu ci dara foofu la liggéeyu ndey di ñëw di feeñ mbir ma sotti yàlla def ci jàmm lii nag c'est des gestes à magnifier et c'est des gestes yoo xamante ne bii ñun ci suñu biir ñëpp war nañ koo mën a jël xam ne lu baax rek am solo. Mm-hmm. bilaay baaba àdduna marché la. loo fi jaay lu baax. bu mm-hmm. buñ tegee ci baskil bi rek nga gis ci pertement. dëgg la yàlla na nu yàlla dimbali nag. amiin suñu rakk ji képp ku mën a ñaan nañu ci ñaanalal. Mm-hmm. yàlla defal ko jàmm mhm. defal ko xéwal ba mu jug fii te man am naa yàqee ne dina jug di sant suñu yaay ji bu baax a baax a baax a baax ci muñ gi mhm. ak dal gi mhm. ndax léeg-léeg nga gis jooy te olof nee na ku yéeyu di jooy yaa xam la ngay jooy la muy jooy du bëri ronxaj day am fu xelam dem rek di sant magam ji nag ci accueil bi dal gi ak lépp ndax mënoon nañoo toog tey si ñëw ci ñoom ñu wax ba waxaale loo xam ne bokku ci te boobaa nit da lay xeeb mais saa yu ñuy wax nga sant ñoom ak dal yàlla di wax ne nañ ñi jàppalante te yàlla rek tax ndax lu waaye jëf te yàlla taxu jooju jëf niin ndax nit ñi moom koo ci jëfal tey bu kontaanee tàgg la bu meree xarab la kon gërëma jëfal te yàlla tax te boo paree fàtte ko di lancer nag un appel très solennel à monsieur le ministre Matar Ba ci yeneen cas yu mel nii te nekk ci làmb je peux citer Père Mbaye Gueye Papa Diop Jéeri Boston Douba Lees Boy Bambara mi nga xam ne deux ans mi ngi ku lay te loolu man waxtaan naa moom mhm. ne ko xa problème bi du jël xaalis joxe mhm. am na ay ministères yoo xam ne yow ak ñoom yéen a nekk mhm. sollicité leen ñu jël ñii jël leen en charge wala ñu def ca lañ ca man mhm. bu boobaa lépp lu ca mën a xew yàlla nay jàmm dinañ xam ne la la war def nga ko ak Boy Malika mhm. donc yàlla nañu yàlla dimbale ba ñuy mën a gis lu baax di ko wax di ko def ndax ku def lu baax yàlla fay la di leen sant yéen tamit bu baax a baax a baax di leen gërëm kase Pape Sarr woo naa ko démb ci guddi mu xamal ma ne ma mi ngi mbuur ci kase mhm. pour jéem a xool nu ñu ciy taxawee moom tamit loolu moo ko téye ñëw mhm. Demba Jamaa mii tamit maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax lépp moom la mhm. di wax ne nag ñun liñ def suñ bopp lañ ko defal ndax suba xamuñ ku muy dal àdduna weeru koor yam bu doog jotul rek duugu mun tawee tey jii ku relancé woon lii six ans ci ginnaaw mm. nga wax li ji bi ama wala nga wax ko yaayam ji du ko gëm mbiri yàlla la nag mm. nañ ko gëmee noonu di ko def ba ñun bu buñ ci taxawee yàlla tere keneen mën a ñëw taxawoo ñu nii allahumma salli ala sayyidina Muhammad yaay booy defe naa ne ñu ngi lay ziar yow tamit ah bëgg dañ ne woon sax duñ la jox kaat ndax dañuy bañ rek waaye nag du a ñàkk ndax li def coow lépp yow la daal yàlla na yàlla defal guddal fan te yëkkati doom ji macha allah mm-hmm. maa ngi nuyu ku ci nekk ak sa tur ak sa sant mm-hmm. ñu fi ñëw ñëpp bàyyi seen yitte mm-hmm. seeni soxla ñëw waaw jibi defarul yàlla di tax ngeen bàyyi seen yitte ñëw fi man it noonu waaye yàlla lu mu dogal rek loolooy am te ku la defal lu baax ku def lu baax ku ko wax la bëgg ministre Matar Ba daanaka ba bi maag moom a ko bokk ndax man balaa sant mosuma koo gis lu dul ci tele waaye maa ngi koy ñaanal yàlla li mu def yàlla na ko yàlla fay yàlla yokk postam ba ci kaw a kaw lu mu ragal ci gouvernement bi bu mu ko gis yiir aar ko mook njabootam ak yéen ñi fi ñëw yépp yal na leen yàlla musal ci ndox ngeen toog ba sant yàlla ci liggéey bi ngeen abte kontaan naa trop di kontaan ni ñëw ñépp ndax ku lim juum waaye maa ngi sant delloo sant xaadim jaañ ndax keroog bi fi ñëwee dafa indil jibi xaalis bu takk mu ne moom sutura la bëgg génnew ko sax de ko roof ci suuf mbàjjum ba pare mu ne jibi sa yaay sonn ci yow yëpp dinaa la ko fayal fas naa yéene bu dee ndox mbas bi jàll na bu dee amul mm-hmm. dinaa yóbbu sa yaay penku mu aji loolu maa la ko dig te xalaatuma ko woon mm-hmm. Ah. Mm-hmm. waaye yàlla moom xol rek lay fay te kànji dama koy seetaan télé fii moom ak kii fii laay jël sama chaise toog bu ñuy wax dama naan ji bi man damay déglu kànji ak buur géwél mii ndax seen olof ak seen proverbe yi ñuy wax mm-hmm. neex na ma dama ciy copier te nitu dëgg la nu muy waxee nga xam ne nitu dëgg la mm-hmm. tant que ñu ci wax ji tele mm-hmm. duma ma jóg tëdd ku ma waxoon ne dina dugg sama ëtt néeg bii ma weddi ko waaye yàlla pare na démb tey doog a ñëw dama leen di ñaanal nag sama xol tànk bu ngeen seq ñëw ñëw fii yal na leen yàlla may yiw bu dee ci deret waliw laa jóge mhm. yal na leen yàlla fay bu leen kenn fay ndax doomu aadama mënul fay mhm. sama xol sedd na mhm. am naa fierté tey ñu ne Kandji dugg na sama biir kër kontaan naa ci ak yéen ñëpp yal na leen yàlla fay ngeen fay ak képp ku defal jibi ndax metti woon na metti woon na trop dama doon bañ sax génne demoon naa ba pikiiram yi benn pikiir deux jours laa koy pikir ndax aw moon lu ma koy pikiire ku nekk xam na pension veuve dara ma ne ko nañu koy def par ñaari fan ma dëkk ndoy naan dem leen ci Iran dem ma ne ko duma dem fen may def noonu def noonu ma ne ko jibi ñii war di jënd la mu or yi kii ma oo bi ma ne ko kaay ma jaay la sama chaîne or li ma ci fay du dara jibi ne yaa ma ne ko waaye dina mat pikiiru fukki fan mu ne léegi looy takk ma ne ko man bëgguma sax takk chaîne mu ne bëgg nga xam naa la ma jaay chaîne bi ma dem may jox liilu mi fanweeri junni laa ko jaay ma jox liilu cent mille ma ne ko demal jëndali ma daan teg ci eBay bi moo gën a yomb fukki junni bi ma téye ko pour ay couche ay augmenté moom fi mu tëdd muy jooy ma ne ko jibi yàlla dina ñëw mbaa mu yónnee waaye bi nga ne léegi lépp jeex na lépp jeex na su ma guddee fan xëy na moom bu wéree xëy mu takkal mu rool la ay magam dara yàggul gudd fan laay ñaan rek ak wér ak wérle ak mboolem jullit kontaan naa na leen na leen yàlla defal sutura àdduna ak àllaaxira may leen mujj bu rafet musal leen ci pexey noonu ak seytaane seen ànd bi yàgg merci